ndong sa li muy def nii ak baaxaayam bi daka doon na si yaayam parce que yaayam suma jigéen la te gis na nu nekkoon ak man mu nekk ko ak njabootam ñi ñu teg ma nag fu sori moo tax loo gis rek du hasard kuy 7 h du matin 2 h du matin C'est wàcc ku bravul def parce que 2013 ba léegi ñoo kon xam 7 h du matin day génn balaa moo dugg ci kër gi une heure day bëgg a 2 h du matin toute la journée nit nga fajar ba ngoon doo yendal doo fanaanal loolu jigéen bu baraab rek moom ma Alaaji moom man bu ma xëyee su ma demee bu ma yeewoo def li may def yëpp def samay toilette def li may def yëpp ba pare damay dem marché su ma dem ay 7 heures 7 heures et demi laay génn sama kër dugg marché. mo duggee marché génn ay 8 heures 8 heures et demi si laay ñëw tok commencé boyal di togo ki may raxasal di raxas may may may may may togo soos man fii laay toggee du togo togg mu fanaan suba teel bu ma xëyee fii laay toggee soble de moom jarul togo mu fanaan boo xëyee mën na ko togg saaf sa pomme de terre defal marinade yeeg mayonnaise yeeg yooyu salade yi daal di commencé jaay sama doom la sama rakk la sama lépp la waaw mu doon nit ku baax nag nit ku baax ndax lii ku baaxul du ko def xool ko amul dara nga woy ko loolu ku baax rek moo koy def borom étage yaa ngi fi borom oto yaa ngi fi ñu yor seen xaalis su weex tàll bëgg ku leen woy te gisuñu ku leen woy ñu ngi fi moom mu xool ko amul dara mu woy ko kuy dàq téeméer rek 1000 francs mu woy ko kon El kenn gënu ko dafa baax man mënu ma ko fay yàgg na El Hadj bi mu gimmee ba tey moom day ñëw géej moom moom dafa bëgg affaire booru géej ko bëgg affaire booru géej moom day ñëw géej fii si xale yu góor yi. clients yi jàmm salaam rek jàmm salaam rek ñu bëgg li may jaay bëgg li may togg ku ko lekk daal kontaan waaw. jigéen ñi ñu yokk góor góorgóorlu rek gën a góor góorgóorlu rek dëkk bi métti nag trop trop trop nag waaye ñu yokk góor góorgóorlu rek takk ndiggéey rek ndiggéey moom tànk ñu ngi koy takk rek lu ñu bëgg a faj dinañ ko faj kenn xaaratul ku la yee ku ne yaa yee sa bopp kenn yeewatul kenn bunta yee ubbeekoo ndoo nit solo ndoor daal la ñooy génnandoo kër yi góor gu nangu nag sa jabar di la fa bàyyi di xëy ah nga xoolaat sa bopp rek su sumbujun moom xalaatuma leen si liggéey rek xalaatuma leen jigéenu sumbujun xaaruñu ko leen wax liggéey liggéey rek lañuy ñuy def ñoom xanaa ñu bañ ko gis mais tant que gaale ñu ngi dem géej jën mu ngi am liggéey rek la ñuy def ma leen di ñaax ñu gën a góor góorlu rek gën a jàpp alaaji yi di leen bégal si di ñuy liggéey ndax bu buñ leen siy bëggal rek yàlla day indi xéewal fête bi fii lañ koy defee sama place maa leen invité sama moromu jigéen ñëpp maa leen invité fii 8 mars bi pour bëggal leen rek ndax El Hadj ndax ñoom dañu bëgg El moo tax ma leen di bëggal bon feddee des femmes góorgóorlu leen bu baax a baax sañse leen ba rafet maquillage bu leen bàyyi dara takku leen ba rafet ñëw fii mbaaru El Hadj bi 8 mars bi fii la maa ngi woo ñëpp Cheikh Bin Fall Waly Seck Viviane Bamba Fall Cheikh Ba maa ngi woo ñëpp surtout nag Marème fay Sall moom dafa war a ñëw fii moom waaw moom moom dafa war a ñëw seet si mbaar mi moom toog lekk jën xam ne sénégalais ñëpp benn lañu te moom si social lay dox maa ngi koy woo maa ngi xaar de ah na ñëw. Bin Fall Bin Fall.